kon nak mbokk yi daw leen gaaw abonné ji ci chaîne bu mag bobu di khidmatul khadim tv di chaîne bu am njëriñ ci dina na ci yoonu mourid demal youtube nga tapé khidmatul khadim tv l'official nga daal di abonné wu ci chaîne bobu di khidmatul khadim tv l'official ngir nga mëna am waxtani am solo yi bayiko ci chaîne Abdourahmane bakay kun abana yombna bouton bu rouge bobu ñu bind s'abonner mom ngay daldi bëss soko bëssé mu indil la trois notification nga di bus, bisikau, ci kaw notification nga xamné lepp lu khadim tv l'officiel day wax ci adisi yi bëgg dik ni ñu aramale ke dëkk ci ba andi lu muy jaay bëgg koo jaay fi saasa wàññiku am ku dëkk ca dëkku taax ba ne ko andi ma jaayal la ko li fekk nangami fan nga am ci lu gën a xéewale yonente bi daa aaye woon loolu ndax daa bëgg nit ñi dimbalante nga bàyyi ko ci àll ba bu dikkee rek dañ ko bàyyi mu jaay lu yomb wa dëkk bi wa tax yi jënd ko moom mu daldi wàññi ko dellu waaye na bu xenne andi ma tegal ko fi dina ko jaayal ndànk ndànk dëgg la ci lay gëna bare njëg waaye nag dana xañ nit ñi jàpp ni ko mënoon am ci bu ko bàyyi rek moom ci dëkk ci àll bi mu jaay rek daldi wàññi ko dellu yonent moo ko aay ki dëkk ci taax yi bu mu wax nga bàyyi ko ci àll ba di ko andi bàyyi fi ma jaayal la ko lifeet nangami fan nga am ci lu gën a cher mën nga am ci njëg gu gën a baax ndax ne loola xañ na waa dëkk ba njariñ la nga xam ne mënoon nañ ko caa am ndax mënoon nañ ko am ci lu yomb moom miy jaayit daldi jot ci njëgam rek daldi dellu caa tegoon ne da'un bàyyi leen nit ñi yàlla mi def seen diggante ñuy dimbalante kee di am wërsëg ca kee bàyyi leen loolu yàlla def mu wéy ba tey aay woon na gàttalu ñuy indi marchandise mel génn ba ca mbeddi dëkk bi ngay gàttalu ñuy indi ay marchandise di ko jënd ci ñoom lu yomb boo dikkee jaayawaat ko ci biir dëkk bi lu jafe loolu nag moom mel na ne mi ngi am ba léegi ñi indi matt wala ñi indi lu ñore ca àll ba am na ñu leen di gàttandu ca buñ dee dugg dëkk bi daal koy jënde ci lu yomb ñëw di ko jaaye lu jafe-jafe yonente bi da ko aaye woon ndax bëgg rek dimbalante ci diggante nit ñi ndax loolu mën naa am lor ci ñaari yoon kañ gàttandu jënd lam yoroon te xamagut njëggu am ci dëkk bi mën naa jaaye loo xam ne dana yées lool la ñuy jaaye ca dëkk ba moom ma gàttandu jënd ko ci moom bu dikkee day yokk njëgga jaaye ko waa dëkk bi lu jafe-jafe ba tey yonent bi aaye woon na kenn di jaay keneen dikk togandu njaay ma bëgg jaay moom itam mais kenn di waxaale ñuy wax fukk am ku dikk ne ko mën naa la jaay li man ci juróom-ñett ñaar bu ñuy waxaale kee di jaay kee di jënd te sori ca waxaale wa dana araam keneen dikk dugg ca day seetaan rek bu jubóowut nag moom mu door caa dugg ba tay yonante bi ay won na kenn di labat manam di wut fenn soxna keneen ñew bëgg caa dugg momit di wut soxna ñu koy wax jamaale ci walaf lu may nak mom mi mujj ñëw dafa dem ci ke jëkkoon di wax ca jojé ne ko waaw té nga mako bayé rek man sama doomi jaay la sama nangam la te man nga dem ci diw man nga dem ci diw wax ak mom ba ke ci di wax bayé ko wala mu togo tok ba yegne ne ka ca wax waxatu ci mu doora dem nak wax ci lolou lepp manes nako ko dal kay ñew di wut soxna bu xasse sori ci wax ja ba benn ñu jibo ba ñaka jibo dana aram keneen ñew di ci wax mom muy li ñu wax jamaale anas mo ne yarante bi ay won ki dekk ci tax yi wax ka bàyyi ko ci àll ba yor lu muy jaay ne ko bàyyi ko fii man mu féetewoo jaayal la ko ndànk ndànk nga am ci njëg gu gën a baax donte sax kookee bàyyi ko ci àll ba di jaay moo ki koy wax loolu te dëkk ci taax yi ñoo bokk lépp itam def na lu wër doon def bi aaye woon na ko ndax dane woon bàyyi leen nit ñi rek yàlla mi doxali wërsëg seen diggante ñu dimbalente kee amé ci ké wërseuk ibn umar mo né yonent bi dañé won bu leen di katandu ji ci bay leen rek ba ji ci ak ci marsé yi ku né la ko ci yàlla wërsëgale mu am ko ca ibn abbas dane yonent bi dañé won bu leen di katandu ñuy ñëw di andi ay marsandise bàyyi leen ñu agsi ba ci biir dëkk bi ba ca marseya tax ñëpp mën caa jariñu te kenn du loro ndax loolooy tax buñ agsee ñoom xam njëgg nga xam ne moo jaadu te moo xew ñu jaaye ko ñuy jënd it am lu yomb mu baamu it ne ki dëkk taax bu mu ne ka dëkk ci àll ba bàyyi fi sama sandis mi ma jaay la ko ndànk-ndànk nga am ci njëggu ëpp ëpp ëpp bi ibnu Abbas waxee lii nag Daawus dane ko li mu ne laa yabi xaadirun libaadin lu ci jublu mu ne ko mooy rek ki dëkk ci taax yi bu mu ne ka bàyyi ko ci àll bi indi ma jaayal la li nga indi ndax nga am ci njëggu ëpp ëpp ndax man daa koy téye di ko jaay ndànk-ndànk du ko jaay benn yoon. Abu Hurayra moo ne yonent bi day aaye woon na gi dëkk taax di wax nga bàyyi ko ci àll ba andi marsandis ne ko bàyyi ko fi ma jaayal la ko ndànk-ndànk mooy ëpp njëg niñ ko waxee woon na bàyyi rek nga bàyyi ko ci àll ba jaay jaay mu yomb te du bu baax ci moom ñu dëkk taax yi jënd ko benn yoon mu amal leen njariñ mu ne bu kenn di yokk njëg ki nar sa jënd ñoom boobu dañ ko daan def yow nar laa jënd kee waxaale ba fay fukk nga ñëw ne man mën naa ci fukk ak ñaar te fekk na dangaa bëgg rek kii jënd jënd njëggu seer nde yow naru laa jënd te it war ngaa jënd itam sax ni ñu ko waxee léegi bu fekkee ne kii waxaale sore na ci waxaale woo moom dana araam nga wax ca te du ngaa gis ne moom bàyyi na waaye doo sañ dugg ci xaali woo xam ne dem na ba sori moo ci topp sax mu ne ba tey kenn du jaay ci kaw jaayu mbokkam maanaam jaaykat bee bu dee jaay di waxaale kay jënd bay sori ca waxaale wa doo ñëw ne kay jënd digg naa ngay tudd téeméer waaye man day bi ma am moo gën bii mbaa mel na ni bii te mën naa la koy jaay juróom-ñett fukk nga xam ne daal bu kenn di jaay di wax ak kay jënd bañ sori ca waxaale wa bu keneen ñu mukk bëgg jaay mom batay niñ aaye woon bëgg jënd di ci waxati dagam dagam rek waxale wa sori na bu ci kenn dugg dañ bayyi ba xam ñu wéy wala duñu wéy batay yonent bi aaye na li wax jamaale kenn di wax ci jigéen bëgg koo takk ba sori ca wax ja dana araam keneen ñëw dugg ca di wax ni moom it daa bëgg soxna de sax bu fekkee ne ki ñëw di bëgg soxna soreegul ca wax ja ba tey keneen tam mën naa ñëw keneen mën naa ñëw keneen mën naa ñëw ku ko ci yàlla féetale ñu xam ne dogal baax waaye nag bu kenn xasi wax moom ba sori ca ay waxam balaa kenn waxati da bàyyi ba xam dana wéy am du wéy yonente bi ba tey aay woon na jigéen di xiirtal jëkkëram ci mu bàyyi wujjam maanaam jëkkëram ji fase wujjam wee ndax lam daa bokk ak moom ci jëkkëram ji lépp léegi féete ci moom dong wala sax sama wujj wi am mu koy xiirtal ci luy tax mu fase ko rawante na mu gis nu ko jëkkëram bëggete bëggiwu na ka ca des tax mu dogu ci ne ko nag da ngay fasekkee mbaa man ma dem ngir bëgg rek bu ko demee moom dañ daa bokk ñoom ñaar lépp jëm ci menn moom rek loolu lépp yonante bi aaye woon na ko muy lu mata moytu am net li bu ne yonante bi aaye woon na katandu ñuy indi marchandise jënd ko ci ñoom lu yomb ñëw jafel ko ci waa dëkk bi aaye woon na it ñu ko wax ay yoon yoon ci dëkk ci taax wax ka andi lu muy jaay bàyyi ko ci àll bu ne ko bàyyi ko fi ma jaay la ko ndank ndànk nga am ci njëggu baax a baax gu bare bari ba tey yonante bi aay woon na jigéen sàttal ci këram ne ko faaw nga fase sama wujj wi mbaamal ma dem te fekk na boo demee xam rek la ko jëkkëram bëgge ba mu jaral ko lu ne ay won na it kenn di waxaale ba sori ci waxaale wa keneen ñëw bëgg caa dugg nag na bàyyi kay ba xam waxaale wa day wéy wala du wéy ay won na it yokk njëg ca ba nga déggee waxaale wa te yow nar laa jënd na naxaate rek bëgg kay jënd jënd njëggu jafe-jafe rek moo la ci duwal ay won na itam lañ daan def ci yooyu jamono ak tasriyatu mooy bàyyi batt bi dañ ko rat muy funki di funki mel lola da aado wo bari am soho te fekk nañ ko ratul rek waye lola du mbiram ki jaay ci bop mu bëgg ko seen japp ni ki da baaxoo bari am soho mu tegale ay yoon yoon nak dañ ay fan fan dañ ko rat ndax rek naxaate ca loolu bari na ay atté ci téere fiqi sa saa ko defee ibn umar batay mo ne yonante bi day daa waxoon ne kenn ci yéen bu mu fekk mbokkum julitam di jaay mu dagg nag njaay ma bëgg kay jënd jënd ci moom te bañ jënd ci mbokkum julitam moomee mbaa mu fekk kuy wut soxna yi wax labat bëgg a takk jigéen ba sori ca wax ja muy jamaale lu may nag daa dem ci góor ga ci boppam ka bëgg soxna ne ko waaw te nga maa dimbale kii man bëgg naa ko sama nangam la sama nangam la te yow man ngaa dem ci diw moo gën ci yow te nga maa dimbale bàyyi ko man ma wax ci bañ juboo ca loola moom baax na uqbatu moo ne yonent bi di dane woon julit julitay mbokkam kenn nag warta def li lor mbokkam te di ko kon daganul benn julit di jaay mbaa muy jënd ci lo xamni man na yakal bokkum julitam ni bokkum julitam di jaay momi tam muy jaay bu gis nak bokkum julitam me di waxale ke bo waxaale wa sori mu di ca dugg ndax mom bëgg jaral doom wala bokkum julitam di wut soxna ba sori ci wax ja bu dik di jamaaleeg moom ant bi neena won julit julitay mbokam kon nak num ko fekk ci lu melni ca dugg gis ne wax bu dee jaay mbaa jënd seen diggante jeex na la bu dee ku bëgg soxna wax ja jeex na mu door caa dugg. kon nag mbokk yi daw leen gaaw abonné ji ci chaîne bu mag boobu di xidmatul xadim tv di chaîne bu am njëriñ ci dina rawatina ci yoonu murit